mbir mu yéeme xew démb ci gox bi di Mamel ci ndakaaru dib colonel douane bu fa faat kenn ci seexam yu jigéen tolloon ci juróom-benni at observateur xëyee ko teg ca ne moom Mouhamed Sall dafa am nag ay jafe-jafe xel ca sax ginnaaw jéey ji mu ngi ñu entré ci hôpital bu Fann soxnaam it na noonu ndax choc bu mu ci jëlee yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne moom douanier bi ba ko gendarme jël see leen doon wax mooy bu ma leen expliquer sax du ngeen comprendre ci yéenekaay bi di libération ñu lu xew ginnaaw si seytaane dugg ko ba yëf yi ëpp loxo yéene kaay bi ne dóor yi nag métti na ndax bopp xale ba la dóor ca lavabo kër ga lavabo bi sax dafa toj yi morso yaay ja diggu gune ga bëggoon a xaru seexam bu jigéen moom ñu ne mu ngi ci naqar ak tiis wu rëy la tribune xëy na jéey ju mag ca mamel akub colonel bu fa rendi doomam bu jigéen vox populi di ñu xamale nag ak douanier bi mooy chef de section d'écriture bu douane bu mool 2 poram Ndakaaru moom Mouhamadou Sall ñu ne jafe xel nag la am magistrature bu Sénégal ak jafe-jafem yu rëy ci gàttal justice bu Sénégal procureur Alioune ndaw ci xëy yi mu jàpp ne fa justice bi toll ci Sénégal mooy ci guute gu rëy ndax téeméer yu jël juróom-ñeent fukk ci magistrat mu ne wóoluwunu kuréel gu mag gi leen yilif di conseil supérieur magistrature procureur Alioune ndaw ne dafa mel ni sax ci gis-gisam danoo am beneen justice bu wuuteeg ba woon ci réew mi rafetluwul nag jàppante yi magistrat yi di juge Amadou ja ak juge Ousmane kan Alioune ndaw ne magistrat di siège buy conférence de presse guléet mu gis lu ni mel le témoin xëy jàpp ne magistrat Sénégal léegi daraja ji woon dafay ruus ndax ñagas-ñagas yi faral di am saa su ne ci biir Sud Quotidien jàpp ne justice bi ponkal mu wopp la dëgg ak coowal magistrat yeeg mbiri grâce présidentielle enquête xëye gëstuy ci li lalu nag ci suuf xare bi ci biir magistrat yi kenn ci ñoom magistrat yi ci yéenekaay bi di leen dénku ne mën a yëf yi nag du lu bette lu ñu mënoon sóoraale la yooy réeroo yéenekaay bi jàpp ne lépp nag nepp xaajaloo loi bi ci wàllu alatrat gi moo ko waral yokkal ñee bañ a des ca sax seen biir da ca am kumba am ndey ak kumba amul ndey bu Sénégal ak diggante bu ñagas bi di bu ministre Malick Sall ak waa SYTJUST Sud Quotidien ne moom jëwriñ ji nag dafa mel ni ma nga yàbbis lëf ca la mu sexoon wàllu wér-gu-yaram observateur xëy dalal directrice de la santé soxna Marie Xemes Ngom Ndiaye wàllu garab ga bawoo Madagascar di covid organique bi mu ne boobee produit ña nga ca gëstu yi ca def nañu ci ay jéego ba mu jaar fa mu war a jaar yépp ba nu soppar ñi ko doomi garab waaye nag joxagunu ko benn malaat fi nu toll mooy ci coppar gi xool ndax du ànd ak posenam déet ak it gëstuy mottali yu jëm ci xool ci ban degré la mën a rey virus laata ñu koy jox nit fii ñu toll mu ne test yi ñu ngi ko def ci jinax garab yi cosaani Sénégal it am na ca yu nu jël ci gëstu ci kàdduy docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye lu ci mel ni bu ñu duppee lion vert te mu amit artémisia ca biir coronavirus bi nag di law ci réew mi docteur Marie Xemes ne li ko waral bokk na ci ñàkk wàccoog dogali fagaru yi ñàkk gëm gi ak it boddi gi nuy boddi ñenn ci amee jàngoro ji ca nag jàngoro ju amul ñàkk amul garab moytu rek ak geste barrière yi mooy li ca war beneen jàngoro di pandémie di bu dal Sénégal ci wàllum suuf waral le quotidien ne pandémie foncière ci réew mi ak juróom téeméeri hectares yoo xamante ni coowa ca lalu di contentieux xayma la tukkee ci directeur bu ONG Action Aid Zakaria Sambaxe yéene kaay bi cadre de réflexion et d'action ci wàllum suuf ci Sénégal di sàkk ñu amal yeesal yu xóot ñeel yorinu suuf ci réew mi ginnaaw réero yu bari yi nu fi nimiku ndengeleer toobeen bon de filao ci géejawaay ngéeñeen corniche ouest phare des Mamelles ak yeneen kuréel gi ne ay yeesal rek moo ca mën a indi saafara yeesal yuñ dugal boole ca ñépp ne ay acteur bañ caa kenn ancien ministre la santé Abdou Fall di gànnuk bi di laas yorin ak xeexinu jàngoro jàngoroy coronavirus ci Sénégal moom résultat yu baax yuy sagal suñu réew la ci gis ko méngaleeg mu ne ak li xew feneen fa mu ko wér ñi ci faatu ak li nga xamante ni mooy limu ñiy wér boobaak léegi terewul nag mu ne bu nu wàcce loxo yi nañu yokk pasteefu gi ànd ak dal ak it sago rawatina bi nga xamante ni kenn xamul kañ lay jeex ji jàngoro xew-xewu diine yi nu dëgmal nag mu ne nañu rafetlu bu njëkk kilifa yépp ni nu àndee maase wuy ji keroog woote président ngir xeex be coronavirus kilifa diine ca Tuubaa Mbàkke it mu ne rafetlu na bu baax ni nga xamante ni noonu la ñuy boobaak léegi Euh, taalibe yi ci wàccoog geste barrière yi ca nag mu ne ndaje yu ni mel bu mun munta ñàkkit mën na doon occasion ngir ñu daal di jógloo ñëpp boole ci waat askan wi ci xeex bi mu daal di doon nag ab yëgoo leneen lu Abdou waxtaan waxtaaneeg las dialogue national bi tolluwaay ca Mali Côte d'Ivoire Guinée Sénégal ak waxi troisième mandat nag moom ancien ministre Abdou Fall ne bu ko ca kenn waxloo ndax dafa dogu ci ne du ca wax lu may danoo yegg ci législative ca fii nu toll mu ne amalagunu màggalagunu sax premier anniversaire wotey président yëfi woon kon bu ko kenn waxloo ci présidentiel yeneen ca fii nu duy local duy législative nañu sëgg mu ne ñoom ci lépp loo xamante ne mooy liggéey fexe ba jëmmal digéeg programme yi seen mbër digoon askanu Sénégal ngir ñëpp gis ci seen bopp